mënuma fay sëñ Béthio bu neexee sëñ Béthio la bu mettee sëñ becco la lépp loo xamante ne sëriñ tubaa defal nañu ko muy sëriñ Saliou jaar na ci sëñ Béthio bis bii tey di 17 avril moo tax tey boroom kër bii tey jii sëriñ Béthio may ma ko ndax bu daje bi amul woon kon sëriñ Béthio bu daje wutoon nag sëriñ Saliou kon cant gi du am te bu amul kon ñun ñaar mënuñu woon daje. kon féex fii ma nekkit muy léppi sëriñ bi man moom kuy biral kàddu cant sëñ Bàcco ci man ngay doore koo ne docteur Soxna Diop ku ne xame ko ak sëñ Bàcco teraangay àddina gune sëñ Bàcco ma ko defal lu ma am si àddina sëñ Bàcco ma ko defal lu ma dugg sëñ Bàcco nekkal ma ci li ma koy ñaanal mooy mu yàgg fi te ànd ak wér ba man sama yéene man ci moom sëriñ Saliou dimbale ma bu mottali ko ndax day koo xamante ne lu ne def naaw la ma ko lu ne liggéeyloo na ma ko muy maanaam mu ñuy accompagner si lépp dib sëriñ di guide spirituel di sëriñ boo xam ne maanaam dafa présent surtout lépp lay dimbaleeb taalibeem ca université ba la lay toppee di la saytuloo sam njàng nga génn mu lay dimbalee ba nga am liggéey am foo nekk am place di la jëfal xéewal yoo xamante da ngay xamante ne Serigne Saliou Mbacke boole gi ñu ko booleeg taalibe yi ndimbalam ndimbalu Serigne Saliou gu rëy la ñun de mënuñu ko fay Serigne Bethio ndax tey man su ma demee bay jàng xasaayit doo ma gis ko ci àddina te sama dol nekkul sama saak foo ma gisee maa ngi sama dollu xasaayit sama saak xaw ma ko woon mënu ma ko woon xaw ma woon sax luy xasaayit maanaam doon jàngam tubaab taxul lenn sëñ Bethio daal moo ñu jël. nargal ñu ci ak taalibe xamal ñu Serigne Saliou Mbacké bëggloo ñu Serigne Saliou Mbacké waaye ñu ne ñu bëgg ko lool moom sëñ Béthio ndax wax dëgg yàlla sëñ Béthio dañoo defal lu ne lu ne ci àddina maa ngi yëg kaddu sant ko te kay ñaan sëriñ saaliw mu yàgg fi lool te ànd ak wér Serigne Saliou wéral ko lool ndax mooy sunu njariñ àddina gi ne àllaaxira ga du jëm sëñ Béthio couple man dama ne man des fois dama doon réfléchir ma ne man kon man bi ma juddoo bu cant amul woon kon man nooy amee kon